asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar ah, tey nag incha allah damaa ñëw rek pour euh, li ma leen diggee woon ma def ko mooy dama leen waxoon na leen lu toll ak ñaari fan dinaa leen jox secret yu jëm seen wàllu diggante yi waaw tey nag loolu laa fas yéene pour mottali ko muy tey mooy juróom-ñaareelu fan bi incha allah moy rek ñi nga xam ne ñu ngi nekk si diggante sëy yi. wala digënté yi mo xam digënté xarito yi wala digënté mbëggeel yi wala digënté sey yi itam souvent nga yor sa jëkkër wala sa jabar ngeen dund dund à distance yow yaangi fi sori mo mu ngi fi sori seen digënté téléphone sax ku ci nekk lay kaas ma diwri ma koy dégg pour ma dégg ko nangam nangam wala buñ digënté téléphone ci ay ciow lañuy mujjé wala buñ digënté téléphone ci ay waxi ciow lañuy mujjé ci ay problème Euh, wala nit ki toog sax du la woo moo xam mën na laa dal si sa ki ngay bëgganteel mën na laa dal si sa mag sa xarit ku mënti doon daal loolu nag la ñu gëstu woon ndaxte kon mu leen koy waxee toujours dañuy gëstu di ut liñ ci mën a indi pour séddoo ko ak yéen fii nii si penc mi dañ koy indi séddoo ko ak yéen yàlla nag mooy mottali yàlla yàlla mottali en tout cas képp koo xam ne yaa ngi def daal ay secret ñu joxe fii te jiital si ragal yàlla jiital si njub rek incha allah yal na yàlla mottali ko yal na yàlla def si tawféex incha allah loolee ne ñaanal té ñu ngi am yaqin né incha allah yàlla dina nangu ñaan gi ndax ndaxte bët bu set nit woñu sant ñu gërëm ñu né def ngeen dara def né ko gis résultat kon lolu ñukël bi dañ koy delloo yalla suñu borom ndax té lepp lu am rek mom la mom la sopp waaw kon incha allah tey secret bobu la fas yéene bu neexee yalla suñu borom andil leen ko seddo ko ay yeen expliquer leen ko bam mu leer euh, comme ni ma leen koy faral di waxee rek en tout cas daal lépp daal na ngeen ko teg si njub teg ko si lu neex yàlla teg leen ko si njub teg leen ko si lu neex yalla kep ku fi jëfee jëf joo xamante ni àndut ak lu neex yalla wala lu bon wala nangam yalla bu mu kon mbir maa ngi noonu comme ni nga ko gisee fo yi ngeen a jël ngeen bind ko xaatim bi ñu ngi ko teggee si wàll xeetu aleykum mahabbatan min nii bu ngeen xoolee si biir ñu ngi def ismuhu ismuhu day tekki turu nit ki nga bëgg ni ma ko bindee nii si kaw fi ma def cette fois bi da bind turu nit ki nga bëgg bëgg mu woo la ngeen nekk si jàmm bindal turam nga teg si turu euh, maanaam sa numéro téléphone ba pare dog see teg itam mooy euh, itsel bii mooy woma dégg nga comme ni ma ko defee nu ngeen koy bindee bamtu ko ba muy sept fois yéen a ngi dégg bamtu ko ba muy sept fois naa leen ko leeral mu gën a leer mu ngi ñëwaat nii seen écran mooy da ngeen koy da ngeen bind maanaam bul ñëw bind bul bind ismu de da ngeen ñëw bind direct turu nit ki nga teg si raqamu xaatika mooy yow sa numéro téléphone yow mi may waxal sa numéro téléphone ngay bind ba pare teg si itisal bii mooy appel moi mooy wooma nga bamtu loolu ba muy juróom-ñaari yoon boo demee ba si fin bi mooy si suuf da ngay bind sa tur bind turu nit ki nga bëgg si maanaam seen tur mu jàkkaarloo kon ni mu ko defee damaa def ton nom si français def son nom su ko defee yi ñaar seen tur yi dañuy jàkkaarloo bu ko defee baatu mahabba bi day nekk seen diggante mooy ma mahabba boobu ngeen gis ma dugal su ko defee ngeen tëj ko ngeen lem kayit gi dégg nga def ko si téléphone maanaam pochette téléphone maa leen expliqué ni ngeen ko war a defee diggante téléphone bi ak pochette bi foog ngeen koy dugal mën nga ko bind si fooy bu ndaw mooy fooy pep blanc yi rek yu ooyee fii nga xam ne boo ko si defee du tax téléphone bi xaw a gondelawu wala mu xaw a rëy noonu si kaw waaw fooy yi yem rek ngeen koy bind lii nag secret bu am solo la boo xam ne man niñ ma ko joxee man maa ko tiggee nii maa ko defaree nii waaw kon nag incha allah ngeen fas yéene koo def rek comme ni ma leen ko waxee euh, bu ngeen ko defee comme ma leen ko waxee ba pare ngeen lem ko caabi ji nekku si dara xam naa dama ko doon teg pour bañ ngelaw li ëpp ko mu naaw mais caabi ji xomb boobu du si dara kii kele euh, bi waaw du si dara bu ko defee da koy lem boo ko lemee nga dugal ko si diggante pochette bi ak téléphone bi comme nii dégg nga su paree nga jël ko bàyyi ko noonu su ko defee incha allahu rabbi bu neexee yàlla suñu borom kooku noonu ndaxte lii nii eh, am na ñu ma ko jot a defal wax dëgg neex yàlla gis nañ si résultat mais nag dafay dépendre si dugalee ni xaatim bi ak itam ni nga koy defee loolu tam dafa jar a xel waaw am na solo lool boo mooy premier secret bi léegi beneen bi moo nekk nii muy wadduha wa leeli isa sajja wadduha wa leeli isa sajja bi dañ leen di pour ngeen bindu ko si diiru dëggal sax nga zikkar ko si eh, nga bamtu ko Eh, si lim bi ñu wax ñaar fukk ak juroom ñaar manam da ngay jang wu duha wala layli besi sajjaa bam jeex mais saa boo agsee ba si wa ka dalan fahada da ngay bamtu juroom ñaar yoon bo agge àggee wa ka daalan fahada da ngay koy bamtu juroom ñaar yoon nga yeggal ay bi nga demat jàngat wa duha ba jeex bu ko defé nungu koy bamtoo bam ñaar fukk ak juroom ñaar mais toujours ba agge ba si ka fahada da ngay bamtu ba muy juróom yoon nga diko saxu diko def chaque jour bu leen wax ne ay zikkar bi dafa métti mënuma koo def nangam nangam ñu bari loolu lañ may wax mënu maa def zikkar bi alors que yow sa problème bi moo gën a métti zikkar problème boo ko amee am nga ko dangay ngay jaaxle kon nag fexe leen ngeen di saxoo di def yi ma leen wax Wadduha lii ku ko mënta kii tam mën nga ko bind si français jànk ba mu wax ko que aay bi guddut dégg nga maanaam suraat bi guddut fexe leen ngeen jëm ko jàng rek di ngeen ko mën pour seen soxla yi ngeen am mën a faju ndaxte ñun li ñu mën mooy def leen jox leen rek. lu si des na yéen kay koy sen bop ki mu jafé itam mën nañu wo rek ñu sét naka lañuy fexé dembalenté ak yeen ci côté bobu inshallah comme suñ numéro yi non légui na benen bi mo nek ni moy summa astawa ila samai summa astawa ila samai bat bi itam mom zikar lay doon dang koy def jurom fuk ak jurom yakarna moy 55 su ko defé dang koy def si bis yi mooy lii dafa am lim moy besu al khamis guddi nga koy def besu dimanche guddi besu altine su lalu lolou moy condition yi ñetti bés yooyu nga koy mëna def zikr la summa astawa ila semai da ngay bayina na bu guddi ba ñëpp tëdd ay côté minuit une heure nga japp ba set de nga julli sa ñaari rak selmal ba paré na kurus nga def summa astawa ala ila semai summa astawa ila semai nga def ko lu tolloog jurum fuk ak muy 55 si alkhamis su guddi dimanche su ak altine su guddi incha allah nga koy def di ko continuer chaque jour ndaxte loolu moom bëriwut waaw kon nag tey lii nii laa fas yéene woon indil leen ko dina ñëw si yeneen secret yu jëm seen wàllu mm, kaaraange yi ubbeekaay yi jafe-jafe yi nit ñi di dund seen mbiru bopp ak daal yi ni mel daal incha allah kon nag tey lii leen indiloon ñu ngi yem fi dina jox di daje suba jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi